jaajëf sama gars yi salaam jàmm kum mbedd ndigas baa ngi nuyoo léew maa ko mëcc wala waa dégg ko fay monsieur booy ji ji ji li teer ay kay booy grand yof ay kay monsieur ay kay takk ay kay mu ne fu ne ñu ngi leen ziar bu baax a baax tey dama ñëw buur musique fekk bi waa Akatsuki gang fas yéene yaatal ak ñoom ci seen projet yaatal ak ñoom ci lu ñuy waajal ci lu nu nekk euh, kañ leen former seen team xam nga Ibu kañ la récupéré booy ak nu mu def ba récupéré booy yooyu yëpp dinañ si ñëw léegi léegi. Eh, mais avant tout damay bàyyi gars yi nuyoo kenn ku si nekk présenté wu après ñu dugg ci biir waxtaan bi sama waa ji naka moom. sant bu wér grand ji so ñu ngi ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di nuyu gars yi ñu seetaan yëpp maa ngi tudd Nunez from Grand Yoff City bokk ci groupe Akatsuki donc euh, représenté Bour Music fii si Guédiawaye et nuyu ñëpp. maa ngi leen di Sosa. from PA City Bour Music represent Akatsuki Gang Gang yeah. jaajëf ñu dem sama waay. yow salaamaaleykum sama gars yi it's Kid Valley maa ngi dëkk Géejawaay yëmbal from Bour Music Akatsuki Gang Gang Gang bu baax a baax bi. Yeah, yeah, for real. It's from Kinpi. Yeah, yeah, represent Boom Music, Akatsuki Gang Gang Gang. Yeah, yeah. Akatsuki Gang Gang Gang. Euh, tey maa ngi géejawaay studio buur Musique fekk fi ak suki ki geng geng mais dama dégg ci biir wax tout le temps euh, soo saa expliqué naan bu baax bi sa bu baax bi lu waral bu baax bi. <laughs> bu baax bi waaw ko gars yi ñëpp xamee rek parce que daa am beneen bu koy mbuggoo rek bu bon bi ñun ñooy bu baax bi for real bu baax fépp fépp fépp lu waral lu baax la parce que ñun bu baax bi rek mm-hmm. foofu rek ngeen ko teg. mais mën naa si yokk sax. waaw ñëwal ñëwal. <clears throat> ngeen baal ma ñoo njëkk a génn en fait c'est c'est c'est très simple. non mais ñee leen njëkk a xam ñu leen njëkk ñun lañ njëkk a xam. c'est juste peut-être grand public bi ñu mm. ñi ñi gën a bëri si ñu ñi ñi nga xamante ni par exemple tey ñoom ñoom duñu suivre rap peut-être tout le temps mm-hmm. dinañ ne booyee lañ njëkk xam mm-hmm. mais ñi nekk ci biir réseau bi xam dëggantaan page yi nekk Instagram et tout mm-hmm. ñoo ñëpp ñun lañ njëkk a xam on a sorti dugal waaw waaw ñun ñoo leen njëkk a dugal vidéo YouTube ñoo leen njëkk ñoo njëkk a téye tur boobu noonu Akatsuki ñuy wax fu ne Akatsuki page yi page yi nekk Instagram boo leen defee tuuti recherche di ngeen gis hmm. boo leen demee YouTube ngeen tapé Akatsuki di ngeen gis one forma nigga suñu vidéo bi ñu koy génnee ñoom kenn commencé gul wax seen i wax dëgg la hmm. léegi damay damay damay damay ñëw si sama bi dóob hmm. euh, lu waral lu waral cooli kon xëccoo bi Akatsuki original bi problème bi dafa am fu mu commencé ci neem bi wala nu mu demee noonu comme comme Nunez nu mu ko jotee teg léegi ñun ñoo njëkk ak fël ak ak turu Akatsuki tu vois mhm. ça mois si ginnaaw génne nañ vidéo tu vois wan fa ma ne gis mhm. voilà donc après après après maanaam événement yi après ñun ñuy def suñu promotion di dugg si ay rajo voilà mhm. tu vois lañ jékki-jékki gis benn groupe boy tu vois clash ñu quoi est-ce que yaa au début on comprenait au début jàppuñu ay clash entre Akatsuki dañu jàpp juste que am nañu clash quoi tu vois. Mm-hmm. léegi voilà léegi ñoom seen clash officiel ba mu génnee su fekkul tur ni ñu koy bindee la mm-hmm. disons que ça représente presque la même chose quoi voilà. Mm-hmm. c'est ça. mais Kit. Euh, euh, origine bi maanaam coolu woon yéen da ngeen bokkoon kuréel yéen ñëpp nekkoon benn wala nu demee noonu wala yéen da ngeen daan sànnante xeer si net bi. si xëccoo si waa yéen gars yi waaw. Euh, au fait mën nañu wax ni la source du problème au fait si Sosaar la commencé parce que dafa amoon benn son boo xam ne maamoo ñoo ko dóoroon bu tudd euh, méchant son méchant la tudd benn freestyle Instagram la woon nii après on la a fait le son après ay semaine après benn membre si groupe beneen bi euh, jël son bi story ko après mu si la waxee ni booy de man la ñuy clash alors qu'on comprenait même pas son boobu def na ko bu nañu wax ne sax def nañ ko ay mois et mois ci ginnaaw et donc bu mu jëlee loolu après voilà yéen lu ci xew xew si booy commencé dugg di saaga est-ce que comme après si lañ génnee Max Sosa benn son boo xam ne benn freestyle la parce que ñun on avait l'habitude di def ay freestyle session studio yoo xam ne dañ koy dóor nice nii donc du coup bu ñu defee vidéo boobu noonu ñoom ñu fonde ñoom ñu ñoom la ñuy pique alors que au début on avait mis que ceci n'était pas en classe donc du coup lendemain bi si lañ génnee seen son bi ñu pique ñu si carrément jaar suñ tour loolu waxee ku wax ni nekkul clash c'est parce que mais Sosa yow ginnaaw yaa l'origine bi yow Pinet nga dëkk from PA nga est que nekkul booy nga classe tamit Sosa. xaaral ñu a sip mais est-ce que man moom clash ma kenn clash ma kenn te pig moom égo truc la bokk tamit. Mm-hmm. yeah sànni say pig la ku keese tamit waaw yaa tooñ sa boobu ko wax dëgg yàlla. mais yow yow gars yi yow ak ñoom da ngeen xamante woon. waaw disons daan nañ déggante nii daan nañ déggante nii rek mais. mosuñu fréquenté wante mooy hmm. loolu. ok mosoo leen fréquenté. non non. kon mais fan ngeen fan ngeen teg ni gars yi yéen yéen lan classe mun nga ma may li waral ngeen ni yéen lan classe lu tax loolu Nunez. Euh, bon fu ngeen ko teg. bon loolu en fait euh, comme ça waaye ni ko expliqué loolu mën nañ ne moo ñëw sax avant avant clash bi di di di ñoom dañoo xëy benn jour dem benn émission euh, ngeen baal ma Seneweb mm-hmm. donc euh, boo xamante ne booy dañ leen invité ñuy freestyle ci biir freestyle bi ñoom ñu ñu wax Akatsuki le mot Akatsuki saaga te instant boobu ñun ñu ngi doon utiliser tour bi ñoom siiwaguñ mm-hmm. parce que ñu jotoon nañ sax dem Vibe Radio def émission mun mm-hmm. ngeen vérifier ñun ñoo njëkk a dem Vibe Radio tudd Akatsuki tu vois donc euh, bi ñu demee si émission boobu ñoom ñu ñu wax suñu tour ñu saaga ñun ñu bëgg jàmm tontuwuñ leen léegi ñoom biñ koy dugal seen page Instagram parce que temps yi rab wax dëgg yàlla bu ñu xoolee bu dëgg lépp foofu lay xewee quoi Instagram. Mhm. donc euh, ñoom dañ ko dugal seen page mais tagge si. léegi pour éviter ñu ne ñoom ñoom ñoo ñu njëkk a parce que ñoom loolu la ñuy daw tout le temps ñu ne ñoom mosuñu clash et tout. Mhm. dañoo jël seen benn page fans club. dugal vidéo bi seen story ba mhm. pare tagge ñu si. ba pare wàññi ko ba nga xamante ni ñun rek ñooy gis ne ñun la ñuy clash mm-hmm. donc c'est ce qui c'est ce que c'est ce qu'on a vu ñu xam ne gars yi kat dañuy clash mais dañuy jéem a bëgg a wan public bi que ni mm-hmm. ñun ñoo nekk di leen clash ñun ñoo jéem a nekk di ut buzz à la à la base mm-hmm. ñoom ñoo ñu clash ba pare yàlla teg si loxo rek quoi bu ñu waxantee dëgg euh, yàlla teg na si loxo ba am na loo xamante ni peut-être tey ji ni xalaatuñ ko si woon xanaa looloo tax kon refrain bi sawaay naan clash bee leen may buzz clash bee leen may buzz effectivement ñoom bu nekk woon clash bi du ñoom du clash bi en entier sax benn partie benn booy rek moo fa aay en fait donc donc loolu tey Mister Cash effectivement ah. non yeneen booy non ça va ñooñu des na na lu bëri <laughs> sax. yow yaa tey bi Dóob. Euh, dégg nga ni classe bee la may buzz. Mm-hmm. est-ce que du Kubla Xalil bi. Kubla Xalil bi est-ce que bokkul ci loolu di problème Xalil bi nekk Akatsuki pied. ok no pour pour pour pour ne pas mentir quoi genre ñun dañoo inspiré wu nii nii nii comme réplique quoi mm-hmm. juste comme réplique tu vois. on a yéen moom yéen da ngeen wax ak gars yi yéen da ngeen wax ak gars mu leer quoi mais ñoom. nee genre ñun en tout cas suñu réponse en tout cas suñu réponse si ñoom ñoom seen seen clash la basé wu quoi en fait répondre nii si air bi quoi te au fait comme Nunez ni mu ko waxee sànq. peut-être ku naan lii du clash je sais pas Velimo quoi ku naan lii du clash parce que Nando hip hop vraiment quoi. man moom déglu naa déglu naa déglu naa Veeru Xalil. moo ko dégloo keroog bi ma leen dalalee maa ngi ko koy wax. déglu naa si Agatsuki sa mooy loolu. xam nga mais yéen dee leen sukkandiku si boobu kàddu pour gars yi xam ni yéen ñoom la ñuy waxal mais bu ngeen ñëwee ne dañ ñoo clash si ay kii bañ a wax tamit VR bi tamit après mooy nga truc bi lan la même pas ñu clash ñu directement wax suñu tur ou bien truc du genre le fait juste euh, ñuy utiliser le a nom Akatsuki offense la quoi loolu ñun mënuñ toog nii nii nii ko seetaan tu vois loolu kese waxuma la pig yi hmm. tu vois hmm. donc noonu la fa demee ko parce que xoolee li waral clash bi ñaari booy la mais clash bi entre gang la quoi kon ça veut ñeneen ñëpp dañuy ñëw pour yokk si doole kese voilà noonu la demee. Mhm. ku nekk da koy wékk ci sa bopp rek tey par exemple par exemple yow seet si nga ñu Equinox imagine benn nit xëy benn jour teg benn rajo. ba Equivox excusez ba pare bëgg a utiliser boobu noonu par force. Ah, loolu day compliqué de. <laughs> <laughs> loolu mooy kit. Eh, kit yow moom yàgg naa la xam Niness daan moo daan nan moo xay waxam yow sax saa yi track maa ngeeg moom tépp quoi nem bi tur bi kañ ngeen ko créé ak nu ngeen ko créé euh, voilà question boobu je pense bien que ne mooy mooy mooy répondre à tout ça li ñu gars yi di di nekk di wax ni yëpp parce que Akatsuki ça a été créé il y un an on avait formé benn affaire boo xam ne Akatsuki la tudd boo duggee si net bi comme ni ko Niness duggee si net bi eh, boo tapee Akatsuki tu vas voir ma vidéo boo xam ne man maa si nekk ak Amiral Line ak euh, hashtag boo xam ne door nañu ko il a un an donc du coup après loolu noonu euh, on a on a continué à carrière ba yàlla def ma tante gars yi bu ñu tante Nunez décidé woon euh, da ñu def benn son boo xam ne son bi day nekk ak quatre ay ñoo koy dóor benn son boo xam ne nañu ko dóor ensemble mais après bu ñu envoyé instrumental bi on s'est dit au lieu que ñuy def son boobu noonu pourquoi pas ñu jël comme que on on avait tous du ñu ñëpp ñu ngi doon filante suñu biir pourquoi pas ñu créer benn benn benn collectif boo xam ne sa va ça va être plus fort que son boobu noonu. Euh, comme que ñu aussi on était des adeptes y gars yoo xam ne on adorait les mangas on s'est dit pourquoi pas ñu use tour Akatsuki bi après Akatsuki bi aussi il faut savoir ko qu'on n'a pas utilisé le nom lettre par lettre dañoo dañoo def de telle sorte que ça va nous ressembler genre dañoo jël def A 4 yokk suki suki moo wolof la est-ce que A 4 suki. donc du coup voilà voilà nekkul comme Akatsuki comme ñu ko ñoom bindee ils ont pas fait ils ont pas fait d'effort si voilà loolu lay wax ils ont pas ils ils ont ils ont pas fait d'effort ni de recherche si seen tur bi ñun on a fait des efforts et des recherches si suñ tur bi pour créer benn affaire boo xam ne vraiment ce sera nouveau et ce sera original. nu ngeen def ba daje yéen ñi nga dëkk Grand Yoff euh, Sosa dëkk Parcelles. sawaay dëkk géejawaay sawaay dëkk géejawaay yëmbal nu ngeen def ba daje fu ngeen xamante nu ngeen def ba li ñu garab ci kaw lay fekkante mhm. donc ñun ñëpp comme li ma doon wax sànq Instagram nekk na euh, lieu boo xamante ni mhm. lépp mhm. donc ñun yàgg nañ doon gisante sosa moom man sama petit frère la moom maam moom du si sax si rab lañ xamante so yeneen gars yi par contre Dope ak euh, Veli donc euh, ce sont des personnes yoo xamante ni wax dëgg yàlla seen potentiel ak seen talent seen mën rap loolu kenn waxatu ko sax si rap ga seen tu vois. donc kii yàgg non yàgg na ko man dama leen doon suivre ñoom ñaar ñëpp ci internet bi et tout et arrivé à un moment. doof doof <laughs> li mu yoroon moo diis moo tax <laughs> pour mu jug day am problème <laughs> li mu yoroon moo diis mais il nous a bi ma gisee bi ma bi ma amee idée wu. je me suis pourquoi pas ma jéem def benn son boo xam te ne featuring lay nekk ñun quatre quoi. Mm. so ça moom c' était déjà acquis donc euh, ñaari booy may contacter leen booy tamit juste feeling bi c' était voilà quoi mat c' était c' était moment. Mm-hmm. donc c' est passé très bien ma woo leen ils ont accepté ñu def son bi prod by Dam Dam. Mm. Euh, qui est un beatmaker excellent mm. aussi que je salue de passage moom moo moom moo moom moo jël projet boobu noonu tëgg beat bi mm. son bi nice après bi ñu waxtaanee ñu ne pourquoi pas ñu def collectif lu tax nga bàyyi label yi nekk Grand Yoff li ci mel ni Alpha Mythique bu ma sol euh, reptile yeneen ak yeneen. Mm. ñëw ba fii di joobee fii géejawaay. non ñu ma par parce que woowuñu ma c'est juste. man dama toog sama gaale en def samay freestyle di proposer sama bopp ci internet bi et voilà quoi. avant bi man commencé woon nañ ma wax sa wax. Mm. commencé woon naa ne xam ne yaa ngi fa commencé am dara. Mm-hmm. jot na nga jibi ci gars soxla daal. <laughs> jugal jugal fii di buur Mythique nga ñëw. non buur musique sama buur musique su may dem grave sax dama koy yóbbaale. Ibu Ibu Ibu moom faa mu indi label bi. grave transféré sama contrat mais mais mais loolu loolu mën na nekk mën na nekk mën na nekk so que buur musique daf ma proposé famille en fait Ibu ba ma woowee ma booy damaa bëgg nga ñëw nga signé sama label voilà c'est simple dañuy liggéey maa yow. Euh, li ñu am avant tout mooy dañu am link c'est une personne boo xamante ni day dugg ak yow ci aspect familial avant muy ñëw ci affaire de liggéey mm-hmm. donc loolu noonu laa am fii te wax dëgg yàlla jaar naa ci ay label yu bëri mm-hmm. c'était très difficile d'avoir ça mm-hmm. donc euh, loolu rek moo tax ma nekk Buur Musique <laughs> instant yi wax dëgg yàlla xamee nga ma booy bu soof bi lu waral loolu koy waxal foofu <laughs> daa mel ni sawaay ngay waxal nag non sóori daa mel ni sóori ngay waxal pourtant a tëggal benn baatal de. non ñoom sax. ah pourtant élément na ma boo demee laajteel ma gars yi ko pare pour ñu baatal rek ah. ma ak ñoom sax. a boobu bi. Eh, parce que boobu soof laa dama soof rek. yaa koy faral koy faral di. Eh, bi son bi génnee ak léegi naka ngay dundee PA ba lépp jàmm alhamdulilah. nice nice maa ngi maa maa ngi si jàmm maa def samay samay samay trajet si jàmm maa waa gérer sama lépp nice quoi. baam nga fa benn gang bu nekk sa ginnaaw. eh <laughs> man maa ngi ci jaamu daal bro <laughs> ah, booy booy yëpp parcelle lan dëkk yow yaa dëkk parcelle ñëw fii dal seen kaw. Euh, xam nga fan si club mi ngi na cat <laughs> baa ngi nee waa waaye mooy gérer affaire affaire garaaw parcelle ni boo fa duggee ne doo président nga lu bëri de. da nga am dara <laughs> waaw kon dinaa fa dinaa fa dugg yow tamit géejawaay from géejawaay nga. nag uh, base bi fii joob nga ko traa nga ko. woo nga yi pour ñu ñëw support. donc disons que gars yi ñoo ñëwal seen bopp quoi. parce que yàgg na ba ñu gisee ma nekk di rap tu mm-hmm. bien vrai que genre. musuñ musuñ xam oh, exactement si lu ma nekk des fois dañuy toog naan pourquoi doo génne son truc du genre pourquoi ngay laaxatu mais comprenez pas man idéologie bi mooy doxee quoi mm. mais instant bi actuellement gars yi recognize nañ ko en mm. ñoo ngi recognize à chaque fois ñoo ngi gis ay nouvelles têtes yoo xam ne day ñëw pour waaw pour support quoi donc fii moom base bi nice quoi pour l' ñëpp assuré ngeen refrain bi rek nga koy déglu mu expliqué la lu ngeen génnee projet temps yi mm. bu ay seen yaram tàng na da ngeen profité si occasion bi nag <laughs> waaw waaw comme ça waaye lu mu wax wax dëgg de waaw <laughs> comme ça waaye mu wax rek dañoo am ay njiit ñun moom son bi bu ñu ko prisé dañ ko bàyyi studio bi ñun amuñ amatuñ lu ñu ciy def bu ñu xasee texte suñuy suñuy texte moom pare nañ ci mhm. ñoom ñoo xool ñu génnee ko mhm. nan lañ koy génnewee ak fan fan lañ koy génnewee surtout mhm. vu que équipe loolu moo leen fi tax teg bu fekkee ni ñun dañuy def lu ñu neex tamit kon ñooñu amatuñ njariñ so projet bi li tax ñu génnee ko ci ci consensus entre ñun ak euh, ak organisation bi ak euh, label bi donc c'était juste basé sur le fait que vu que instant bii nii ñi ngi wax ñi ngi wax ñun lan moo tax dañoo ñu ko ñu former collectif bi situation rab bi nu mu demee instant bi on s'est dit comme que gars yi yëpp ñi ngi naan Akatsuki bii nii lan moo tax mu taxaw ñii lan moo tax ñu nekk fi on leur a fait comprendre que ñun déjà de un ñu répondre au problème du clash parce que ñu bëri ñu ngi naan non booy dañu profité aussi clash clash mooy tax ñu ceci cela mm-hmm. ñun non seulement dañoo dugal suñu repli dañoo tontu ba pare mm-hmm. ne leen ñun lii indiwuñu fi léegi clash bi dañu bëgg ngeen fàtte ko mm-hmm. ngeen xam ne projet moo ñu fi indi te pour mu wan leen ni projet moo ñu fi indi son yaa ngi nii déglu leen man dama xool naa projet bi en ah, YouTube mais sans bu ci nekk am na plus euh, quinze mille de vues et quelques di dem gars yi ngi koy ñu ngi koy xool bu baax a baax dafa mel ni kon kii bi arrangé na leen de ah booy bi mais waaw na fu fu fu ngeen tontoo gars yi baax nag fu ngeen génnee projet bi parce que tey buru dul woon lii est-ce que lii ci ay vie non même bu dul woon lii tam xaaruñu leen woon nii ah. non même bu dul woon lii yëpp ñun ñun ñoo ngi nekkoon tamit suñu yoon ñoo ngi doon job ñoo ngi doon job ñoo ngi doon job comme ñu ne su ko waxee comme nu mu ne su ko waxee lii benn benn lu ñu leen waroon woon la rek lu ñu leen waroon woon la que clash indiwuñu fi ñun dañoo nekkoon ci job bi classe bi génnee ngeen toog bind profité projet bi wala yàggoon ngeen koo jox. disons ba ñuy projet bi lu muy lu muy lu muy lu muy refléter en premier lieu mooy genre ñun première vibes quoi instant yi ñu doog a xamante instant yi premier moment yi dund studio voilà mu nekk projet yi. disons que nekkul ay sound yoo xam ne c'est actuel quoi nii nii lañ koy doog a def. Mm-hmm. def nañ ko ay waaw. non même pas des deux mois si ginnaaw. Ah. tu vois am nañu ay plusieurs sound mais dañoo tànn sound yooyu ne pour l'instant yooyu branché voilà mm-hmm. c'est ça. après bu projet bi jeexee album ngeen ñuy may wala mixé wala. bon pour l' instant instant bi gars yi ñoo xool en tout cas on a des tonnes de son comme ni ma ko waxee si view yi passé on a des tonnes de son donc euh, déjà équipe bi mooy décider tu vois ñun aussi ñu xool lu ñu arrangé ak loo xam ne mooy gën a jàll ñu def ko c' ça mhm. voilà. kii projet bi ni mu ngeen jut su duñ njaago sax nee doo njaago njaago si bàyyi baala ko yow daa mel ni loolu làq njaago la départ ba saagoo ñu gaañ gëjë so ay séeréer la ah ngeen joo ngeen joo so mooy mooy lan ngeen joo so non pour pour dire sans en fait c'est euh, genjutsu pouvoir la en fait c'est pour montrer boo xoolee amu projet bi dafa dafa ay signes parce que avant ñu génne projet bi tout le temps dama doon wax gars yi waaw boo leen ñëwee boo leen xoolee suñu tur lu tax ñu bind A def chiffre 4 dinañ ko expliquer ci biir projet bi. Mhm. projet bi balaa ngay dugg ci projet bi sax cover bi déjà da lay expliquer la moo tax ñu choisir 4. Mhm. parce que déjà boo xoolee euh, cover bi da ngay gis ne euh, nit yi nit yi ngay gis foofu noonu ay dessin lañ. Mhm. donc déjà ñun ñu ngi lay ñu ngi lay dugal dans le dans le dans l'univers du manga. quoi. noonu la fa demee donc Genjutsu bi déjà yow ñu ngi lay dugal ci univers manga te personnage boo xoolee seen morphologie ak li ñu sol da ngay xam ne ñii c'est dans le c'est japonais. Mm-hmm. donc ñun déjà. Euh, fekk si nañ dugal nañ gars yi boo booy dugg si projet bi rek xamante yaa ngi dugg dans l'univers du manga mm-hmm. et dañ lay dañ lay dañ lay dugal si ay vibes yoo xamante ni am na ay son yoo xamante ni da lay plané loo ce qui explique ci biir cover bi mm-hmm. nuage yi ñu ci def ci biir ñu ngi naan Akatsuki saa mu la sànq sukki bi moo olof la ngay sukki mm. boo xoolee cover bi da ngay gis ay plumes yi traîner mm. maanaam loolu yëpp boo ko relier par rapport ak son yi nekk ci biir son ci ci biir projet bi mm. tu vois que benn concordance ak benn univers boo xamante ne ci lañ la bëgg a yóbbu mm-hmm. Genjutsu aujourd'hui c'est la chose qu'on partage ñun ñëpp parce que ci biir ci pour wan la link bi mu am aussi ak 6-9 bi mm-hmm. boo xoolee suñu bët yi yaa ngi ciy gis benn benn benn benn dessin mu ci def tu vois ce que je veux dire donc tout ça mélangé nga gis ak ak son yi univers bi ñu la yóbbu dans le le dans la mélodie ñu lay yóbbu ci këjëng këjëng bi tu vois ce que je veux dire donc c'est c'est tout ça qui montre en fait l'âme du projet loolu règle en tout cas am na solo instant bi nii pare ngeen pour yéen ñëpp ku ci nekk def benn son suivre carrière solo wala boog wala instant bi gi bi ngeen koy téye nii rek yeah yeah fii ku nekk collectif la rek ñun ñëpp ku nekk dafa amoon sa carrière solo te yaa ngi koy gérer naas yaa ngi ak sa staff sa ginnaaw yaa ngi sa équipe sa ginnaaw ak ñu lay support mais Akatsuki bi comme ni ñu ko waxee rek Bour Musique fii famille fii famille bu ñu ñëwee ñun ñëpp bañ ba ba ñuy toog di di si waxtaan ne pourquoi pas faire faire équipe mooy loolu gérer def a bi ku nekk amoon na sa lépp solo A4 dañ koo dañ ko teg gën a yokk suñu bopp doole yaa ma gën a xam mais terewul ku nekk mun na day gérer carrière solo am na équipe am na léppam yeah doo jaay doo jaay prek ak suki bu nekk parcelle ngeen teg événement euh, biir akapes <laughs> non loolu par force la <laughs> mun nañ ko xaar yee loolu par force la représente pied série 1 boobu 26 capital bi man la capital bi maa ngi dégg nga naan booy dañ war a jël sa sant santale ko seen bopp yaa ndax classe wax boobu foo tontu na question boobu <laughs> clash bi may bëgg. Uh-huh. na la xiir bi. bu yàgg Samba Gueye la ma jox xiir bi bàyyi sax moo tax moo tax seetlu woon dara. Mhm. bi 6-9 bi génnee booy tonga tonga ay trois 4 jours doo gis booy si net ñëpp a daw. moom moom Mbaye tamit ma gisee ma moom moom Mbaye accordé na rakam nga. waaw moom Mbaye nangu na sànq na ñuy déggoo téléphone <laughs> moom bi nga baax moom Mbaye. <laughs> mais en tout cas daal la kii jamono bi lan moo nekk li ci kanam lan la lu ngeen di waajal. ba li ci comme ni ko Dóob waxee rek ñun instant bi nii ñu ngi toll suñu moment carrière boo xam ne du ñu raar du ñu raar si réseau boobu fet voilà te aussi mën nañ xaar beaucoup de parce que voilà comme sànga nu ñu koy waxee rek clash bii nii c'était c'était c'était pas l'objectif boo fet Euh, et projet bi on l'a pas sorti sur un coup de tête faudra que les gens comprennent ça. même si couple sax day ñëw yenn daan formation bi. <laughs> en fait en fait est Euh, ku nekk dafa am dafa am dafa am benn benn façon bi ngay bindee fa man dama man je suis je suis damay damay seetaan damay seetaan euh, des des films fantastiques manga yi je suis je suis accro au fait loo xam ne c'est c'est extraordinaire c'est ça donc du coup mooy bind je fais je fais de telle sorte que euh, damay damay damay essayer impressionner gars en même temps choquer leen si si si ay trucs yoo xam ne voilà ay trucs yu banal nekk ñoom ils vont l'interpréter comme neneen ñeneen ils vont l'interpréter bien et voilà am na ay gars yu may kóol wala yu may am message nañ ma promotion lii ak lii ak lii billaahi mais bon c' est juste que man man primo pël la sama sama famille xamuñu sax loolu xamuñu sax loolu xamuñu sax loolu donc du coup voilà quoi man moom non simna simna simna mais bon man en tout ñun on est des musulmans voilà ñii ay euh, ñu ne euh, il est chrétien Sosa aussi même chose mais man ak doomu Massa on est des musulmans et voilà et kii bi garaaw na yow moom yaa ci gën a am problème parce que da nga dëkk ak booy xam nga sa waay booy grave ni nees booy grave moom gars yi duñ ko fek fee <laughs> xaw a <laughs> yow booy pied nga moom duñ ñëw ko ñam doy waar man maa ngi maa ngi maa ngi saat te maa ngi en sécurité sama saat amadul loolu sama maa ngi doo bigi maa ngi gars yi waaw noonu la fa en tout cas am na ko si taxaw ne ku ñeme daal ma ëppal leen baatal tépp élément nee na ku ci pare si yen xalil waaw non xalil amul kenn pourtant Mr Cash Mr Cash mi ngeen soxla Mr Cash nee na élément mooy rappeur am mu ne élément mooy rappeur mooy rappeur non pour mu jóg pourtant nag élément naa la dara dafa baatal dafa yëngal gësam hmm. dafa toj jël na façon euh, saay fa bu ne jël na ko hmm. am na yoo xamante ni man jiri laa woon invité hmm. naa ko ay yoonu yoon rajo di ko rabloo ba baat bi dee non dafa wane ay preuve am. Element gaa xam nañ ko de. non clash ko bëggoon xam yaa ko xam. Element na ni avant clash bi. Element day feesal ay stade. c'est <laughs> mais c'est pas pour lui manque de respect c'est juste que man ci réseau yi ma xam wax dëgg yàlla ku nekk ak fi ngay fi ngay. évolué dafa am a xam que si réseau bi nga ëpp looy mais gars xam nañ leen mbedd bi xam nañ ko c'est bien c'est bien mais bon moom intéressé wuñ particulièrement quoi. gars xam ne si bi voilà il t'envoie des messages d'encouragement ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay support de ouf sax ñu ngi lay jox doole boo xam ne yow doo xam sax nu fa demee noonu nga xam dañu lay bëgg et eh, maa leen big up maa leen nga Dow ak sa mu tudd waay caméraman bii ne tout donc voilà quoi ñu ngi big up ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu shout out ñëpp ñu xaar jusque Akatsuki mu ngi ñëw avec de nouveaux trucs yoo xam ne voilà mosul am si game bu fa sama gars yi tey Akatsuki lañ seet si woon fii Bour Musique waaye géej di leen bëggee bu baax a baax ginnaaw bi ñu demee PA fekk fa Akatsuki ñoom it wax nan booy tontu nan yéen ñiy seetaan yéenay xam fa la dëgg gi féete en tout cas daa si pop di bëgg waa Elfa Musique bu baax a baax tey tout moom solal sama gars yi bi. lan war a taxaw jàppale leen bu baax a baax parce que tey animateurs yi fi nekk yëpp di pousse ki nga xamante ni gars yi xam nañ ko ba pare loolu amatul sens ku ci nekk génération bi nga tollool xel teg tànk si loom teg loxo si ñoom gars yi bàyyi leen xel xel ëllëg euh, benn Nunez Junior bu tàngalee ñu xam ne sax au moins Jili teg na loxo si carrière am mais bul ñëw fekk ñëpp xam nga bëgg ci rey sa bopp rek ak kii bëgg kii ak yow nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jàppale booy yi di leen jox rendez-vous beneen yoon sama gars yi Equivox Lone TV euh, Galsen sama game jaajëf sama gars yi ba beneen yoon incha allah jili Music bul jaawale six neuf yalwaan bi yëpp la ñëw këpp kenn mënu ñëw dix tëb pourtant clash ñu moo la may buzz like numéro dix tëf ñun school garden yëpp suñuy sët takk gu ma jaman ay boon laa lay ni nga ñoro day dañu onk ngeen fël bul jaawale dëpp yel wan bi yëpp la ñëw këpp kenn mënu ñoo diis dëpp pourtant classe ñu moo la may buzz like numéro 10 këf nu school gas seen yëpp suñuy sët takkaguma jabar ay bon laa lay ni nga ñoo la day dañ onk ngeen fël attan may faj seen wéradi xamee ngeen ma booy bu soof bi saltel gem bi xoolaay mi nen nañ boolay doole foog seen tontin ay dofu mag bi diggati na armée AK47 fii du fa mekkaas amul rapport bu ñuy lebal noo du maag yéen dam tafu géwél wow fees to fees nga teg ma jaay la peg sans peg sa beg cop sa lekk fees sa teg with the best jaruñ seet ñoo ngi feeb ni virus bees nga teel na la sliba kees ndax yaa ci des dans tous les da ngay dee na ñu lay jeey te laa lay faj ba nga wér noonu li du géer naan sa carrière ñu biteel biir soog la tees ay bi ñu sa gat ke gas prius boy dañoo fas dañu egsi yegg si mel ni fas ñu nag yéen nekkul combat seen niveau bas comme entrepreneur porno so furieux soppi dof nit papay képp ki kiikee agar géng gazen ñëppay king ñoo ne kiikee amul polémique challenge sans briquet alien la mën a tuma nite bitch bépp la uute ànd kan ma jute booy dañu briller fuck you ak seen busu woon wuy deux ans deux dons képp ku fi yëg tu descends capitaine bi mën a deschamps li nga askib talent du jaay fen daf ñu warax sa taat lay cang dañu woo si kalash yéen lekkay bañ ak sukki capitalu rab gal gul jaawale six neuf yàlla tëb pourtant clash ñu moo la may buzz like numéro 10 tëf nu school gazen yëpp suñuy sët takkaguma jabar ay bon laa lay xër ni nga ñoro tey dañu onk ngeen fël bul jaawlee 6 9 yel wan bi yëpp la ñëw këpp kenn mënu ñoo tiis tëb pourtant clash ñu moo la may buzz like numéro 10 tëf nu school gazen yëpp suñuy sët takkaguma jabar ay bon laa lay xër ni nga ñoro tey dañu onk ngeen fël ni nga limal fël bi ko seen tànku maam non non damay la doy tàccu man ey ma leen di woon mayor aatu man bàyyi ma tëddee sagal pare ci ngoom saaku ñaax ey man damay génn sama sidi xew ba amee sidi cicatrice ni karo kase ben ku xamul lu taxaw ma sigi booyee la nga mu may diri colul bësu naa ko may ben wëy la morte mais van ci ci bësu abu ci ba lo xëy si si caga di fa bu dang bu dang bi ci lan nga kat su boo ma classe solal bin bin ba pare ñëwaat lu mpa lu mpa big dig rek ma ma mbaay ñu la ñu sama dooma asaxir ma nu ka ñit nii la scripa sama négas duñu bale ak asuki capital wax ci bëri yaa ko taal bandi toog pan cuki fan bi lay ne agi foo si sa tadi lay paan foog ni nga foog say mbokk foog ñi la gëm yëpp musuloo ma gis di ma clash ay bitch ni nga ñu ne tax nga yée comme sa raq lañ tëf ak asuki saa bu dul ñun mbatal maa ngi mere mais gëm naa sama bopp wante du ma doxee bopp kese ñoo koy toj comme xeer si ndel kon loo fi teg ñu teggi ndem fajab teel maa ngi ngandam dafa jon si jekk sañ naa dugg ba sa gaale sa pees jeen laaj wërër yi ay parce que gars yëpp amul bénéfice ni nga xaju sa néegu rab dama cëral yi ay taxaw guy ku may jële fii sama jëne xaruloo ku rey gën a di boy sa koor comme ku dee si baay da nga zone te fekk bés dem si fël bul jaawlee six neuf yalwaan bi yëpp la ñëw këpp kenn mënuñoo diis tëb pourtant clash ñu moo la may buzz like numéro dix